alors tey ci suñu kayitu tukki euh, dañuy dem euh, dëkk buñ naan Bokki Jawe mhm. Euh, bokki jawe nag euh, tey fa la ñuy dem lu tax nag ñu taamu tey bokki jawe bokki jawe dafa bokk ci dëkk boo xam ne dañu gën a fonk seen cosaan seen aada waaye tamit dafa am loo xam ne mun nañu wax ne ci seeni wax foofu la cosaanoo maanaam muy wàllum cuub mhm. cuub bu njëkk ba ak cuubu tey wuute na torop ndaxte bu njëkk ba dañ doon béy cuub mu nekkoon loo xam ne lu naturel la dañ ko doon béy euh, léegi nag li ñuy def rek Pape Cheikh ñu ànd ak yéen ñu daal di leen woon li nga xamante ne rek moom mooy cuub bu njëkk ba ak cuub bi nga xamante ne moom la ñuy cuub léegi tey. waaw nag du ma wolof nag. waaye da ngay cuubu. <laughs> lii de takk la xanaa ñu laaj leen rek jigéen ñi bu boobaa lii moom nuñ ko takkee bi moom xanaa laxas la tudd laxas bii ah. def. ñu ngi fi. waaye yéen a ngi alhamdulilah. ban tissu la. léger la mooy tissu léger bi nekk léegi moom ngeen di mooy xartum yi waaw xartum xartum bu dëgër bi ah bu dëgër bi après moom ngeen di cuub waaw da ngeen ko ñaw wala da ngeen jël rek takk bi dañ koo ñëwee ak puso après xëcc ko waaw hmm. mais boo leen koy takk ñaata temps lay am moom bi actuellement temps du du yàgg noonu hmm. waaw à peu rek bu mu nga takk bi benn journée benn journée mais ci benn journée mën nga si takk ñaata mën naa si takk ñaar wala ñett léegi fi mu nekk ni lan euh, tey yan couleur ngeen di cuub nii. fu ñu nekk nii cuub nañ polman. Mhm. cuub marron. Mhm. cuub bleu. Mhm. ak vert. fii dëkk kat la mhm. cuub bi mi ngi mel ne dañ ko doon mhm. yàgg na ci suñuy maam yi ba ci suñu yaay yi mhm. suñu yaay yi ñoo ñu jàngal cuub parce que ñu daaw ñu dugal xale école seen métier rek lañ lay lañ lay jàngal parce que bu njëkk ba dañ daan béy cuub bi dañ koy béy indigo bi mooy bala bala nekk nee ñu njëkk jàngal indigo bi la ñuy jàngal moom la ñu fekk mag ñi daan ko béy buñ ko daan béy koy béy comme dugub bu ñu béyee béy coton bi dégg nga ñu béyee coton bi. Mhm. bu ñu demee ba nga xam ne béy nañ ko ba bojji ko. Mhm. léegi ñu dëbb ko. ci mhm. gën na. bu ñu ko dëbbee. ak mu faible verte la mais bu ñu ko dëbbee. moo lay jox couleur ñuul bi. lay jox couleur ñuul bi. bii mooy indigo. léegi nag boo koy fend kii indigo bi boo koy defar mbànd mi. mbànd mi bëggul salte parce que lu ñu koy boolee moom xameem. du xame bi xame bi mooy sump garabu sump mhm. moom la ñuy lakk garabu sump bi moom la ñuy lakk mhm. garab bi ci boppam wala doom yi non garab bi ci boppam waaw la ñuy gor lapp lakk ko mhm. bu ñu ko lakkee ba mu nekk doom doom bi day dankaloo mel ne daakaande lii nag bu ñu koy kiiyee ba mu xam bande bi ñor na coton bi bu ñu ko béyee dañ koy defar jox ko ràbbkat yi ràbbkat yi daal ñu ko ràbbal sor yu mel nii bu ñu ko ràbbalee sor yu mel nii après ñun jigéen ñun jël créé ko mhm. génn ci motif yi buñ ko génnee génnee motif yi cuub mhm. ko ci ngañ bi mhm. bii mooy traditionnel njaago séeréer joola yii mooy sooninke euh, mooy seen traditionnel cuub bii balaa Mali di di am cuubu Mali waa Mali dañ fi ñëw fii lañ doon ñëw jënd si ay cuub soo gisee Matam am poste douane loolu tax Matam am post douane dégg nga Pape Cheikh li tax nag tey ñu indi woon euh, dem ba bokki jawee parce que mën nañu wax ne euh, ba cuub fa la cosaanoo mhm. ndaxte ñoom ba léegi dañ koy béy mhm. cuub bu njëkk ba mooy li nga xamante ne rek moom la ñu wone sànq dañ ko mhm. doon béy buñ ko béyee ba pare soq ko daal di koy dëbb buñ ko dëbbee ba pare nag daal di koy def comme genre pâte ñu def ko ci ay ah, li ñuy cuubee ñoom doon ñoom ñoo ko doon ñoo koy defal seen ko doon defal maanaam bu njëkk ba bu njëkk ba ah. ndaxte cuub foofu la cosaanoo ñoom dañ ko doon béy comme dugub bu ñu paree ñu daal di koy euh, dëbb soq ko bojj ko ba pare daal di koy def compat def ko ay muul denc ko léegi nag li nga xamante ne moom mooy segene bi ak xeme bi ñoom dañ doon jël xeme mooy sump sump bi nga xamante ne dañ ko doon lekk mhm. garabam la ñuy jël daal di koy lakk bu ñu sump kenn du ko lekk dañu koy màcc waaw ba tey mais xam nga ne de professeur faa mu comprendre faa mu dem jëli ay cours <laughs> xam nga léegi dañ koy lakk buñ ko lakkee nag da ngay gis day mel ni comme genre daakande hmm. buñ ko bu melee comme genre daakande bu ñuy cuub bu njëkk ba ay euh, xam euh, xam lañ koy wax xaw ma mbana ndaal yi ndaal yi ndaa <laughs> voilà ci ndaal lañ ko doon def ñu xooj ko ci buñ ko xoojee ñu ah. jël loolu nga xamante ne mooy xobu euh, sump bi ñu lakk hmm. def ko ci biir léegi nag ñoom njëkk ba benn couleur rek moo amoon mhm. benn couleur lañ doon cuubee yére ah. mooy couleur noire boobu nga xamante ne gis ngeen ko ci sër yi mm. dañu doon béy coton bu ñu béyee coton ba pare jox ko nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ràbb mm-hmm. ràbbal leen ko jigéen ñi daal di koy jël ñaw ko ba pare cuub ko mm-hmm. euh, dagg ko daal di koy euh, sol yére mm-hmm. euh, mu nekk nag loo xam ne cosaan la boo xam ne ba léegi waa bokki jawe ñoom dañu bokk ci ñi nga xamante ne dañ ko fonk ba tey parce que ci am na ci ñenn ñoo xam ne ba léegi ñu ngi béy li nga xamante ne moom mooy cuub lan moo tax nag mu neex que amul danger xamante ne jamonoy tey jii dafa am danger. Ah. muy segele bi beaucoup de produits chimique bi nga xamante ne daf ci ne parce que déjà booy cuub même boo solee gant. Mhm. daf lay lakk ci biir. Ah tu es obligé nga dugal ndox mi ci biir daal di sol nag li nga xamante ne moom mooy masque. te ñu bari duñ ko utiliser. bu fekkee hmm. cuub bu naturel bi ñu béy la da koy xooj le lendemain nga ñëw jël say tissu daal di koy xooj bàyyi ko pendant une semaine. ci biir hmm. ndaal yi. Hmm. boo ñëwee nag génnee ko weer ko fóotaat ko daal di koy weer mu jox la am benn danger boo xam ne da koy def sa yaram ah. par rapport ak cuub yi nga xamante ne jamonoy tey ji des mhm. fois koy sol sax nga gis nit ki yaramam di xasan dafay mhm. fekk ne ni niñ ko fóotee fóot bi benn setul mhm. ak cuub bi tamit xeme bi ak sege bi daf fiy daal di ëpp Pape Cheikh maanaam bu bi moo gën a authentique moo gën authentique mais tamit parce que nit ñi dañ ko bàyyi parce que béyatuñ ko ah. tey bokki jawe rek ak yenn dëkk yi ngay dem fekk ko ñu ngi ko fay béy saa yoo bëggee gis lu authentique euh, lu amatul boo duggee ci àll bi fekk ko fa lu tax. <laughs> waaw xam nga ñoom dañoo wàccul seen ànd. Uh-huh. waaw xam nga ànd boo ko déggee mooy fi liir bi nekk placenta. Uh, bokkul nag ànd bi ñuy wax déedéet am du kenn du ci toog dafa tàng. la mooy li ngay àndal booy judd. ok parce que boo wàccee sa ànd. nit yi dañuy wax ni boo wàccee sa ànd. ñun ànd donc dañuy jàpp ne ànd bi ñuy. cuuraay bi ñuy ñuy toog xanaa ko buggu dara. ak tàngoor dëgg dëgg xalaat ànd lañ la wax mooy placenta. Ah, mooy mooy mbuus moomu di muur xale bi di muur xale bi waaw léegi mooy cosaan la nit war a xam fi mu bàyyi ko xam fi mu jógee mooy la góor ga waxoon ne rëdd bi ñu rëdd ni bi ko benn góor jéggi boo ko jéggee ñëwaat ci rëdd bi mhm. yaa boole sa bopp ci góor ñi loolu mooy ànd moo tax ko wàcc sa ànd ànd booy dem fekk ca borom ndax benn liir du bàyyi ah, ànd la kon waaw ànd loolu nag moom moo tax euh, ñun loolu moo ñu dal mhm. euh, maanaam dañoo am loo xam ne boo xoolee euh, Mali. Mhm. li nga xam ne moom lañ moom mu seen cosaan mooy bogolan. Mhm. waaye moom mii dégg na mandañ. Mhm. xam na ne bogo bogolan mooy euh, yére boo xam ne suuf lañ ko defaree. yére bu ñu defaree suuf mooy bogolan. nga xam ne ñoom bu ñu daan rëbb bañ gaynde yi xàmme leen a garab yi. dañ ko daan sol nuroo garab yi. làqatu ba jékku ko soo ko soo ko dal ci kaw. waaw yàlla defut luy gaañ. déedéet nit mooy jël li yàlla sàkk mu tëggee ko nu mu koy gaañe mhm. waaw moo tax ñu jël produit yàlla sàkk dem remplacer ko def ay produits artificiels waaw waaye nag cuub moom dañ ko daan def te dara amul Pape léegi rek mooy li ñu jeexalee mooy que ne dañuy faral di naan Mali Mali Mali Mali. Mhm. mais Sénégal mun nañu wax ne ñoom ñoo njëkk a cuub. mooy bokki mhm. jawe mhm. waa Mali dañ doon jóge ñëw bokki jawe di jàng li nga xamante ne moom mooy cuub ak takk. parce que ñoom dañ doon jël seen mun nañu jël benn yére. takk ko pendant mois. boo xam ne ni da ngay toog parce que da ngay ñaw mooy dessin des fois yoo xam ne da koy gis ci cuub mu tax moo gën a jafe sax voilà léegi nag boo xoolee nag cuub bi nga xamante ne ñoom dañ koy béy ñoom duñ ko jaayee Sénégal Sénégal parce que bitim réew tubaab yi moom la ñu gën a bëgg cuub bi nga xamante ne ñun dañ koy cuubee ak ay produits chimiques. dëgg mm. parce que la plupart bu ñu ñëwee comme li euh, docteur wax léegi ñoom bu ñu ñëw les tissus la dañ koy jënd la plupart mm-hmm. Mm-hmm. alors que nag ñun lan nañ ci taamu xam nga dañu bëgg lenn loo xamante ne day tàkk tànka tàkkul waaw te pour mu tàkk noonu il faut nga def ci produit chimique yooyu moo tax ñuy jéegaani di bàyyi yu ne mel di dem mais li nga wax nag lu am solo la parce que mën nga ci am wér gu yaram donc <laughs> Pape Cheikh tey lii lañ kon ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ci borom boo fekk ci borom bu leen fàtte seeni ànd loolu kenn du ko wax sa ànd <laughs> voilà ayca jërëjëf Bessél xam nañu lu ñu xamul woon naa ah, ci dëkk boobu di bokki jawe bokki jawe nag gis ngeen euh, ni euh, jigéen ña fa ne ay jàmbaar lañu euh, comme quoi njàm akuk njàmbaar moom amul góor amul jigéen ca yonent bi ba tey amul góor amul jigéen yàlla sa wax na ko ni minal mu'minina rijaalun mhm. sadaqu maa aahadullah alayhi fa minhum man xadaa nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila am na ci góor ak jigéen ñi fa foofu rijaal rijaal googu góor nga koy firé mais rijaal googu yàlla wax góor ak jigéen la gaa yoo xam ni dëggalul nañu sama diggante ak ñoom mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dem nañu mais ay jàmbaar lañu mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi dundandi ñiit mm-hmm. ay jàmbaar lañu. wallaahi góor ñi ak jigéen ñi. te àll bi sax boo ci demee da nga da fekk ay jigéenu jàmbaar c'est vrai euh, man saa yoo demee ci dëkk yi damay bëgg di découvrir mm-hmm. euh, seen ay togg mm-hmm. seen ay lekk ak seen yu baax parce que damay bëgg a dem ci àll fi mais balaa boobu waa bokki jawe comme saa yoo demee ci bërëb di fa lekk doo fa lekk. <laughs> Euh, plat bi ma lekk Pape Cheikh mun naa wax bi ma commencé di tourner horaire bi ba tey plat bi moo ma ci gën a neex. muy muy ñiiri buuna. na bis ma noonu nag tey nag dañ leen koy tegal ngeen xool nan la ñuy toggee ñiiri bu na parce que Sénégal ñëpp dañuy naan ñiiri bu na hmm. ñiiri bu na hmm. dañ koy tooñee tukulóor mais ñu bari xamuñu nan lañ koy toggee ok Alfi semaine prochaine <laughs> concentre-toi ci ñiiri bu na après nga toggal ñu ñiiri bu na ñu ko tuuti quoi d'accord regarde minen jinno minen kalna minen sade defa ko woni euh, ñiiri buna ko holɗo holɗum mbatta e ñilbunani eyyi eyi woni ko hen eh. eh, ñebbe ma mbaɗa hen gejje ma woni liɗɗi jorɗi Ibrahim Basall Madior. nag uh, booy togg li nga xamante ne rek uh, moom mooy ñëri bu na di nga soxla nag base bi d'abord uh, dugub la dugub moom ngay soxla pour dugub bi nag da nga koy soq boo ko soqee ba pare daal di koy nag walaat boo ko walee mu daal di lay jox nag sànqal nga sunguf bi def ber ko à part daal di def lii tamit ber ko à lay bi ma koy defaral nii dinañ ci soxla tamit li nga xamante ne rek moom mooy ñebbe ñebbe bi. ak li nga xamante ne moom mooy keccax li ci mel ni tamit nag euh, tambadian voilà pëli di ko wax li i njóor bi ak li ci mel ni soble ak ak kaani loolu ngay soxla ak jarte noflaay bi oh, defa ɗum ɗo no wiyete ni euh, ñiri buuna euh, ko son dañi koɗo defa noon ɗum walla ko holɗum somin dañi koɗo hamin ah, defana ɗum ñiri buuna amin ah, teddinoro ɗum ñiri buuna hmm. Hmm. ñiri ɗum woni cosan moɗon ɗum woni cosana hmm. defa ɗum ɗo ñande foof walla joni kam yimɓeɓe kintin ɗum defde galle he galleji he saha saaha fof hamin defa ɗum wonnoon ko ɗum woni cosaan mhm. ɗum woni cellal mhm. ɗum ɓeydata cellal mhm. aha euh, nee na nag ñoom bu ñu amee gan dinañ ko teralee li nga xamante ne d'abord boo yegsee dinañ la jox njóorndi nga naan njóorndi ba pare soo paree ñu daal di lay jox nag euh, toggal la añ bi añ bi nag d'habitude ñiiri buna lay doon mooy ñiiri buna xam nga ñu bari dañuy dégg nag ñiiri buna ñiiri buna xamuñu nuñ koy toggee waaye tey foog naa ne dinañu xam lan mooy euh, ñiiri buna

voilà nee naa jox. ñii di buuna euh, la ñu indil tey léegi ko parce que mélange gu ge mélange gu ñebe ak suba teel hmm. bi dina kii de. <laughs> kon yow day am problème bu liggéey seeti ñebe. Euh, ak keccax ak keccax ak géej. ak géej parce que gis naa ci yas géeju yas. waaw géeju géeju yas. Mhm. lan mooy yas ah géej gi yes la benn géej gi de goo xamante ne daal xam naa ne fuuta daal <laughs> <laughs> ah, lay jóge waaw ñoom seen jënu dex yi la jën yu ndaw la dañ koy napp weer ko ba mu mm. mm-hmm. Mm-hmm. léegi soble mbéy mi tamit buñ ko béyee moom mm-hmm. ñoom mooy nekk seen i épices yi nga xamante ne moom la defee si seen i togg maanaam dañ koy béy ba pare ñu <laughs> doole fànn <laughs> donc sable bi dañ koy euh, nan la ñuy waxee. sàjj sàjj voilà xam nga. professeur mm-hmm. ñu fi toog ko daf leen ay fët daf leen ay fët bu ñu ko sàjjee uh-huh. sàjj ko xorom ba pare weer ko. Mm-hmm. bu ñu paree nag encore dankaat ko denc ko. donc lu mun na dem ba ay mois ah, mooy soble bi nga xam moom lañ do moom ngeen gis sànq mu koy dëbb. Mm-hmm. mais ñiir bu la nekk na plat boo xam ne plat bu neex la parce que base bi tamit dugub la. <laughs> xoolal ma doom yi dellu xale di ma ci ay <laughs> ok ñiiri buuna merci beaucoup Bessél loolu am na solo bon maa commandé ñiiri buuna mais commandé waaw maa maa commandé woon mais <laughs> Bessél mu ne neex na trop sax <laughs> donc ñu ngi ndokkeel waa bokki jawe gépp on en